radaytu billahi rabban wa bil islami diinan wa bi sayyidina muhammadin wa salaam nabiyyan wa rasula mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu leen di nuyu di leen ziyaar bu baax ci bis bu mag bu tedd bii nga xam ni mooy sababu texe bépp murit bépp jullit muy màggal Tuubaa ñi ci siyaare ñëpp jël nuyoo bi siyaar ba ci loxo sëñ Ñaŋ ba mu jàllale ko ci mbooloo mépp rek di nuyu sëñ Moustapha Lo nii doon def waxtaan am solo wi di jëm ju baax moom nii la maamam la sëñ Tuubaa woon maamam sëñ Maxtaar Binta ni ko Maxtaar Binta mu ne ko mbàkke mu ne mbooloo ngi nii sóobu ci yoonu sawara am na seen seen di dem te bu ñu toog daan yegg sawara sëñ Matar bi di doon ko ah loolu mbàkke kii maanaam nooy nekkee sëriñ nit muy dem sawara te nee na ñoo ne maa seen sëriñ Matar baa yéen ngi yéen ngi góorgóor ci bàmmeel mun ko mun di yaakaaru kudut sëriñ Tuubaa ne ko gis ko ko fa tànnale yaakaaru ko kudut sëriñ Tuubaa ne gis ko ko fa tànnale ko ñoo ngi ziar ñëpp xanaa rek li ma bëgg a wax rek mooy sëñ Tuubaa daa teel a àndaale pas ma ngay wax ci xës nga naa leen qaalu liyalkannii abwaabu salaatiin tahus jawaa'isa tuxnii kulla maaxiin ña nga naan ma jàngal jëm ci buntu alal te nga wambax bu ma ni leen fa qultu hasbiya rabbii waktafaytu bihi wa lastu raadiya xayri an wa ma ni leen sama borom doy na ma te doyloo naa te ولست أرجو ولا أخشى سوى ملكي لأنه جل يغنيني ويهديني amul kenn ku may yaakaar baa may ragal sama borom bi xam moom it mujjal mooy mujjal anni ufawwidu ahwaali liman ajasu an xaali anfus ajsu maka masaakin ana nan laa jël sama jëmm di ko yóbbu ci kër di ko nan laa jël di ko yóbbu foo lot la seen ni miskin lot ci boppam aw kayfa yublisuni xubbul hutaaji ala jébbalu wax waxtaane nañ ko ba tàyyi ci lañ ko jël yóbbu ko ci géej gi juróom-ñetti at yooyu màggal gi nag ni ko sëñ Moussa Diop loo waxee sax sëñ mu Diop baxa surtaaru nga xam ne wax nañ ni bu Serigne Touba feeñoon jamono kenn ku koy mën a jàng amul kenn ku koy mën a yilif asalaamaaleykum mbooloo mi mbooloo mi sëñ bu ne ngeen déglu ko tuuti ndax li ñuy waxtaan sax mënu ko xam li ngeen di ñaan yàlla jëm seen turaa ngeen tas détaillé tuuti te déglu te gisul nangam seen turaa rek ñu ngi leen koy ñaan yëpp yëpp déglu leen ngir yàlla jëm seen turaa ñu ngi leen koy ñaan bisimilah si dara. sëñ Moustapha Lo wax na Ibdaadul Aarifiina dañoo wax ne bu Serigne Touba fii ñu mën jamono kenn du mën a jàngal ba ba mu koy gungee la ko ne yow de Serigne Touba yóbbante woon ci yow yóbbante boo xam ne tuuti ma fàtte te yóbbante boobu mooy ba bay kati Serigne Touba neewoon na ma. mu jëw baax ma ne ko mbàkk mu ne neel fàllu bis bu andee màggal gi Touba dinaa doon jëmmam mu doon sama jëmm bis bu andee màggal gi Touba dinaa doon jëmmam mu doon sama jëmm loolu tax sëñ fàllu jël màggal gi yóbbu ko Touba fekk na loolu ndigal sëñ Touba la màggal gi dafa nekk ci ndigal sëñ Touba ndax bis la boo xam ne mooy bis bu gën ci àddina daan ci digg léegi ndax dañu ne ku màggal bi su tukkeem ba jihaar nga aj nga umra am nga yoon màggal bi loolu léegi ci doon wax léegi nag

我相信。 waaye xanaa yu bëri walakinnamaa jahilun talabu xayri bu nit ñi xamante fi ne daañu ñu waaye bañ xam bañ ko réeree dañ njëkkante sax Seydi Xaaji Maalik sax Seydi Xaaji Maalik si radiyallaahu anhu bu baax sax Seydi Xaaji Maalik dama leen di kenn sëñ Tuubaa mu doon sëñ Tuubaa kenn mu doon sëñ Tuubaa nee na baanal kulli man lahu wilaaya tawfiiqi rabbil aalamiin aay ku suñ borom jox wilaaya xam ne ci ma وجسدي ما لا يزال عجبا في أمر صالح من جبا jaaxal ma ay bare jaaxal ma ay tur tàkk yi yéen sëriñ Tuubaa nee na yéen ne yàlla sëriñ yàlla yéen ñu ne laa jaaxal ba ngeen ko gërëm la ba nga doog a day am lu am sa sëñ Haaji Malick Si dañoo nodd ci jiwaawoon dañoo nodd ci jiwaawoon di waaye julli timis dañoo nodd ci jiwaawoon di waaye julli timis sa sëñ Haaji Malick di muñ ci biir jàkka ba jàpp ni gis képp ku xàggam ñu ah leen aadama wax leen li may ree ba da ngeen a jàpp ne rek ak di jàkk daa rek dëgg taxaw leen ma wax leen li may ree ba da ngeen a jàpp ni rek ak di biir jàkk daa rek di xaar mu xatam ni fa lay ree mu ne Sëriñ Tuubaa moo dégg ko mu ne ñu war a gis leen dafa war a gis jaar yi jox moo jël ko dugg ko su lay jox ci ci man nga nga nga jël Sëriñ Tuubaa amul morom kenn la Sëriñ Tuubaa amul morom mu ne wa ñax lii maanaam yu zaalu ajaba fi abadi min saalihin na rujaba jaaxal ma jaaxal ma ay gone yi du tànk ña yëkkati yàlla ba kenn ku nekk ña yëkkati yàlla yaa jaaxal moo tax ñu ngi fiy topp kenn ku ne gërëm nga Sëriñ Tuubaa rajo yaa ngi sëbbihu jiilaani alayhi ridwaan lazi alaat Cheikh Abdou na boppam te xam ngeen ni Cheikh Abdou Khadre Jiilaani ku yéeme la dañoo wax ni ña jamono ak moom ña jamono ak moom ku ko mos a gis bu la neexee di ko mu saj bu la neexee di nga tàggaaj nga dem lekk kay sëriñ Tuubaa ba mu yeggee ci maqaama moom ba mu koy yeggee maqaama boobu ba mu koy yeggee da koo jël rafaatale ko loolu si Xaadim Mbàkke maqaama boobu ba mu koy yeggee da koo jël rafaatale ko si Abdou Xaadim Mbàkke moo tax Sëriñ Abdou Xaadim juróom-ñaari juróom-ñaari jii nii moo ci man Sëriñ Abdou Xaadim Mbàkke dama ne juróom-ñaari jii nii Sëriñ Abdou Xaadim man yàlla bi jàng julli jub joxe ne wàcce ci Sëriñ Tuubaa ni ko yàlla terale ak karamanil ba di yaxu bil kitaabi wa saana nii am jaal bi attaque su ko ko xool da jàng xool di ci su gëstu teree ko Sëriñ Tuubaa mooy alxuraan moo tax ku mës a jàng alxuraan nit ñetti fan alxuraan Sëriñ Tuubaa mës a jàng doomu aadama ñetti fan day faral alxuraan naa yàlla ñu ñu naa ma alxuraan ba naan waaye ko war yow ku mu ko alxuraan Sëriñ Tuubaa la ku jag bu ma gàmbaam foog nga xam ne bokk sëñ Tuubaa loo xam ne alxuraan sëñ Tuubaa ko di bàyyi te Amadou Fa Jamane nag ni jaara sëñ Tuubaa Cheikh Amadou Fa Jamane nag ni jaara sëñ Tuubaa bu ko sëñ Tuubaa ne kay jébul dana ko man lu ma dox di jébul yow bu dee xam-xam bu dee bokk man sa liggéey la bu dee xam-xam fii ba màggat kenn rawul bu dee baat yi bu dee baat yi fii laay ko guddi léegi ñuy leeral maraaj yi lu ma dox di jébul sëriñ Tuubaa ne ko toog fi dégg ma ma dégg maraaj yi dem ba la ko léegi dégg jébul ma yóbbu la foofee nee na bañ ko waxante loola li ñuy def li ñuy def sëñ Tuubaa di saafara ñu ko jiite parce que ba mu kàmbaree Fatia yëpp moom kër Fatia sëñ Tuubaa noonu lañ nekk ak moom lépp sëñ Tuubaa di ko tax ma delloo la li nga yoroon moom li ma yoroon bind ko defal ma ne sëñ Tuubaa daal jiw bi moom sëñ Tuubaa wolof nee na yéene néeg la boromatee fanaan yéene néeg la boromatee fanaan si Abdoulaye Mbacke sëñ Abdoulaye Mbacke daa xam sëriñ Tuubaa daa bëgg alxuraan moo tax mu dafa ko kër alxuraan moo tax yéene néeg la borom ba cee fanaan yéen néeg la tey suñu ablaat mook suñu fanaan bu ko maa ngi tudd baax a baax a baax Sëriñ Tuubaa daal laa xam ne moom alxuraan mooy borom ndax bañ ko jëlee jëlee jolof ma yegg la jib bañ ko yëg bañ ko amee jëlee jolof bañ ko jëlee jëlee jolof njaareem yëpp ko njaareem Sëriñ Tuubaa keroog aji boobu mu ñëwee jareñ dañu sëñ Balla jolof bés bu yàlla tàgg yoo jëlee bi yoo jëlee bi juróomi ba 2018 1912 ba 2018 ñaari at 106 ans ñu gis sa juróomi kaamil xam nga loolu ñaari kaamil 198 kaamil téeméeri junni kaamil ak juróom-ñetti junni kaamil ak juróom-ñetti téeméer ci wàllu kaamil ak alfa salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh